Nhấp với chọc là chờ Chỉ còn người ta khi nhập ở đây bơ gà ama nhầm Halis moj sopi jam def kopon kölü bur Vay legi legi legi magi deçi var Men bu dulce matsak çinye mı yakar Man camın anyu like ma meytan kamlu ga Suma jo hevul depans ga Kuala Lumpur dah begini. Tut tut tut tut tut. suñ bi yéeme na quartier boo xamante ne gain ndox ndox ndox ndox rek gain yoon bu bax sa amul ah ça c'est dëgg te gars bu élection bu jotee ñoo leen ngeen voté ñoo leen ngeen voté te ñoom ay fenkat lañ nat ñu si rek lañ fi xoolal ma nii ah, <laughs> boy hono way boy boy ala noon boy boy boy no hannde bimbi ko mbaɗɗa kan ko welanani ah, kam quoi sawa yo tawi suba mayo wo pare yani jama ɗe ngay boy boy nagunga quoi ɓena instant am na ba pare loy jëma kërti kër jakarta mani boy am boy an haala kaw jakarta mani a wax si si gouvernement bi xam naa moom liggéeyul quoi mais ɓena moo taxit nag moo taxit nag ah ñu tey ci jakarta bi quoi. pour am jakarta bi noo leen tey am lu am lu ñu suturloo quoi ngeen di liggéey yoon bu baax sax mënoo leen ko dem nii sax yow sama classe nga bàyyi yow mooy loolu da ngay wéré quoi <laughs> mais nice quoi mo do bala keliya julateedin napimbelay halambelka napimbelay halawelka wanayawre halifoti wanayawre halifoti julateedin keliya julateedin julateedin keliya julateedin napimbelay halawelka napimbelay halawelka Wana yaure haldi foti. Wana yaure haldi foti. Dapimela e halo yelka. Amor real nigga. Yeah. Amor real nigga. Amor real. What's up? No man, I'm not like. Cool boy. Tranquila. Santu boy, yéen a ngi si doxal quoi. Waaw ñu ngi doxal yéen a ngi si mission bi. Waay dugg ci doxal ni ah. Waay waay gis naa loolu gis naa loolu mais naka gero bay. Waaw gan. rek daal di kurte kurte gars yi gën a xam comme d'habitude ndox mi bëri na de wala torop yooyu tamit bëri na bilaay bilaay non non non non dama doon répété nii quoi waaw gis nga dama doon répété sama artiste vraiment yow laa get man yow laa wóor waaye gis nga gis nga mais yow sa artiste préféré bi gars yi rab bi fayul de grand non est-ce que doo bàyyi rab bi nii grand dëgg na geen non non non non grand yow ñaataat ngay ngay rab ba grand rab fayul la grand boo ko bàyyi nga xooli leneen c'est que boy bi tey loolu moo ñu boole moo tax ma ne ko jakarta bi nga def yow li ngay def ça au moins ça mun na wax la mais moom jakarta bu muy def nii nee na ko loolu du lu bon bon mooy lu bon bon bon man maa maa ngi ci am ay wax na la dëgg de wala wala la dëgg ma kan kan dafa retard benn ah, instant quoi uh-huh. c'est que man yaay sama artiste préféré yow laay gën ndeysaan man du ma gët génn gën man yow laay gën baay job baay ñun ñu ngi si gis nga eh, wóor baarat la ñuy def baay gis bu nekk baay gis nga sawaay uh-huh. grand job waa grand grand booy bi bu ko déglu grand dama laa laaj dama laa dama lay laaj léegi. yow yow ñaata ak ngay rab mais est-ce mus na la fay benn yoon grand. baay ñiy góorgóorlu ah. ñiy góorgóorlu lépp ci dara yàlla la ci loolu yàlla la. bàyyi rab fayu la. non waaw rab du sa métier grand. non geen yàlla la. rab du sa métier grand bàyyi ko sa métier. Mhm. bu boo xëyee suba da ngay kii rab dafa mel ni benn passant bi ngay def nii da nga ko bëgg. da nga ko bëgg bàyyi bul topp bool bi. Ah. bulto boy boy bi xam nga jakarta man du suus mooy boy yi nii naa ko jakarta du métier na wàcce jakarta moom dama la nekk di ah, instant bi mu job quoi ah, kii jakarta jour mu paane rek pann ah. way bulto boy waaw lu leer laa lay expliqué gis nga man li ma lay wax du question dama laa siis mais raay laa lay wax quoi dëgg laa la nekk di tegal bàyyi bàyyi bàyyi gis nga xoolal waa ji lu mu la wax moo ama kii ak ak nangam uh-huh. rab fayu la am na wala amul Oh, am na wala amul wala waay am na wala amul léegi loo xam garab bi non siisu ma man dëgg laa ko nekk di wax nit nit boo ko bëggee da nga koy wax non non bañal loolu bu joobee noonu baay aar bi muy fay de sawaay xoolal aar bi muy fay de waaye fayu la ngi voyage baay dem fu ne c'est parce que nangoo joob grand. non non bañal loolu. non bu joobee noonu xoolal concert bi sax xoolal. yaa ngi koy waaj. non ban concert bu baax maa ngi koy waaj bu baax. Eh, xoolal fu mu ne nii xoolal fu du eh. ñëpp. man la ñuy xaar. ñëpp man la ñuy xaar. bi ma vieille xoolal vieille eh, esat esat noo tuddati noo tuddati réel réel wala duma réel mams réel mams waaw mais yow ku ko xamul dégg na ko yow même wuy ma ko topp yow même wuy ma yow yow yow yow même seen parafin yi gars yi xamuñu la de non booy xoolal lu muy wax seen gara parafin yi xoolal lu muy wax booy bi si si waa seen gara parasa xamuñu la gara leew ni man sa waay géré nga a ngay naan yow da ngay topp booy sa waay concert bi xoolal mois de décembre la. décembre décembre. décembre grand wuy ma fi. Eh, booy bi gis nga. booy bi waa Kolda sax xamu ko xam nga jakarta ma. waa Kolda xamuñu ko seen nopp bi fii ni duuma <laughs> suuf gën a ndaw bi. Mm. ah mm. xamuñu la. boy déggal déggal lu muy waa nee na duuma suuf bi. duuma suuf bi saa man waa yeggu fa. saa waay waaw saa waay li ngay def nii mm. jàpp ci ba insha allahu oh rabbi xoolal xool laay fa lay xam waxuma la xool yow da ngay bëtt frontière grand munoo raay man bàyyi raam te nga bàyyi raam xool bu faale kii kii nii six man la nga ñii nii te nga bàyyi raam ñii nii fayu la yow tamit gën sa xam nga ki xam nga ki sa dama nga ko dama nga ñun grand fi grand fi man dama jàng ba yey sama kay aw fi ma ce que du ma jàpp ci jakarta bi surtout bañ a sàcc fen moo may jàpp ci jakarta bi de du dara de waaw mais yow fayu la yow fo ah? kii fan la jànge eh, eh. koo xamante dañ ko doon demal école muy lakkal mu ay damaa jàng yow befem nga yor mm. nga daan fi ay damaa jàppale tuuti suba mu yàkk la xame su may deeg a faame et dama commencé xame wala boo wala boog xamaatul toog gaay What a buck, what a buck, hey be day fly. What a buck, what a buck, how to make it. What a buck, what a buck. We suffer, said the new bunny, put your letter. Chicken, a techie, your pearl, a bag of juice.